tournoi yoo xam ni dañ ko organiser woon euh, tournoi yi nag li ko tax a jóg euh, euh, c'était juste pour jàppale le ministre Dame Diop moo taxoon ñu organiser tournoi yi. actuellement dañoo toll jamono joo xam ne nii maam jamono massification lañ lañ nekk te bon te bon kii di politique di maam di visibilité te football moo gën a gaaw ci maam ci visibilité. léegi ñu visé woon ne maanaam tey boo bëggee atteindre jeunesse bi surtout nag boo bëggee maanam bégal jeunesse bi da nga leen fekk ca lañ bëgg te jamonoy jamonoy football lañ toll. ñu xam ne maanaam tey bu ñu organiser tournoi lépp lu ñu bëgg ci mbooloo wala lépp lu ñu bëgg ci visibilité mën nañ ko am uniquement pour jàppale maanaam suñu leader euh, monsieur monsieur le ministre Dame Diop. Euh, pour l' instant nag huit équipes lañ jàpp moom la huit équipes lañ jàpp mais tournoi bi actuellement par rapport ak euh, pandémie bi. ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko teeg yooyu mënaguñu wax exact nag maam tel ou tel date lay commencé mais tey moom dañu waxoon dañuy def maam avant première bi pour maam euh, wane na maanaam tournoi bi ñun pare nañ pour tegu ko mais ñi ngi dañu anticiper daal di xaar par rapport ak maanaam euh, pandémie bi ak euh, tere beeg yooyu saa yu ñu ko lever rek maanaam ñu ñu moom ñu sonk mais moom dañuy def avant première bi équipe yëpp kër gu mag la parce que ñun suñu liggéey yëpp dafa màcc jëm ci kër gu mag bien vrai que IVL kër gu mag rek taxu koo jóg mais dañoo wax mbay ci say wóomu bala nga laax jaay da ngay laax lekk da ngay commencé ci say mbokk ba pare doog a moom doog a jàll fenn mais IVL maanaam vision du kër gu mag rek bëgg nañ dépassé fii yëpp daal tout d'abord euh, tournoi bi maam ku ci participer rek dèjà am nga am nga ballon ku participer rek dèjà am nga ballon wi yëpp bon équipe yi nga xam ne ay finaliste ñoom ñaar ku ci nekk di nga am jeu de maillon ak ballon léegi le vainqueur bi dina am cinquante mille euh, le vaincu dina am euh, vingt cinq mille. bi bu ñu demee ba koy def ñu def ko ci fair play def ko ci yar ak ay teggin parce que ki ñuy àndal moom ku ko xam ku ne xam ne ci yar ak teggin lañ ko xamee di wax na nag maanaam kër gu mag dañ ko diviser en maanaam 17 euh, sous quartier 17 sous quartier yëpp maanaam bu ci nekk maanaam UVL am na fa représentant. te ñun ah, ah, maam maanaam représentant yooyu yëpp daje nañ waxtaan nañ ci suñu biir dañuy tëgg tournoi di jàppale monsieur le ministre Dame Diop mais loolu yëpp li ko gën a wund mooy maam di ko soutenir maam di soutenir suñu candidature ci maire bu Diourbel di ko maam di ko xamal waa Njaareem yëpp nag ñun waa kër gu mag suñu candidat ci maire bi monsieur le ministre Dame Diop la